jigéen ñi ak yàlla sunu nettali tey jii mooy ak jigéen ju ñu faj ak janq bu dekki nettali bi mu ngi cosaanoo ci màcc saar juróom ñeent ba ñaar fukk ak juróom benn mark saar juróom aaya ñaar fukk ak ñaar ba ñeent fukk ak ñett luk saar juróom ñett aaya ñeen fukk ba juróom fukk ak juróom benn sart giiri lewi saar fukk ak juróom aaya ñaar fukk ak juróom ba fanweer bi yeesu agsee am mbooloo teeru ko ñépp doon ko xaar noonu ak góor ku ñuy wax yayrus muy njiitu jàngu ba agsi bi mu gisee yéesu mu daanu ci ay tànkam ñaan ko ne ko sama doom a ngi waaj a dee ñëwal teg ko say loxo ngir mu wér te dund jenn doom ju jigéen ji mu amoon kepp la te mu ngi toll woon ci fukki at ak juróom noonu yéesu ànd ak Yayrus bi muy dem mbooloo mag topp ko di ko tànc amoon na ca mbooloo ma jenn jigéen doon xëpp deret lu tolloog fukki at ak ñaar mettoon na ko lool te seet na fajkat yu bare ñàkk na ci xaalis bu bare déggoon na ay mbir yéesu kon mu ñëw ba ci gannaaw yéesu daldi laal catu mbubbam ndaxte dafa xalaatoon ne su ma laalee mbubbam dinaa wér noonu deret ja daldi dal mu yëg ne jàngoro bi deñ na yeesu yëg li xew daldi gestu ne annaku laal sama yére ñépp weddi kenn ci taalibe yi ne ko xanaa gisuloo mbooloo mi la wër ngay laaj ku ma laal waaye Yeesu di xool ci mbooloo ngir xam kan la noonu jigéen ja daldi ragal ñëw daanu ci ay tànk Yeesu wax li mu def Yeesu ne ko soxna si sa ngëm faj na la demal ci jàmm bi Yeesu di wax loolu am na ñu jóge kër yayrus ñëw ne ko sa doom faatu na matatul nuy sonal kilifa gi waaye yéesu mel ni ku déggul li ñuy wax mu ne yayrus bul tiit gëmal rekk te dina dundaat bi ñuy agsee ci kër ga yeesu fekk nit ñi di yuuxu ak di jooy yeesu ne leen bàyyi seen jooy yi jànq bi deewul day nelaw rekk nit ñi di ko ree ndaxte xamoon nañu ne jànq bi dee na yéesu wax na ñépp génn mu ànd ak ñetti taalibeem ak waajuri xale bi dugg ca néeg ba mu nekkoon yéesu jàpp loxol xale ba ne ko jànq bi maa ngi la koy wax jógal ci saa si ruwaam dellusi ci moom mu daldi jóg tey dox waajuri xale ba yéemu ci li xew noonu yeesu na leen ñu jox xale bi mu lekk te mu artu leen bu ñu wax kenn li xew waaye xabaar ba wër na gox ba fii la nettali bi yem nanu jàng aaye bii te ñaan gu ànd ak ngëm dina musal ki wopp ba boroom bi yëkkati ko saak saar juróom aaya fukk ak juróom